voilà salaamaaleykum ami internaute 313 digital te ñu am mbégte ak contentement jàkkaarloo ak Serigne Taïba Fall fas yéene waxtaan ak moom si point yu bëri waaye laata rek ñu xuus si waxtaan bi rek ma bàyyi ko mu nuyonte ak euh, mbokki internaute 313 digital sëñ bi bisimilah. auzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim wala daalin amin bismillahi rahmaani rahim wal asri inna insana la fi xusri illa lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bil sabri mbokk taalibe yi mbokk jullit yi mbokk dëkkandoo yi seen mbokkum taalibe Sëriñ Taïba Fall mu sëriñ Abdoulahi Fall mu Daara Xafoor moo leen di nuyu di leen siyaar muy nuyu jullit muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, sëñ Taïba Fall sànq si sa nuyo bi tudd nga Daara Xafoor. Mm-hmm. ma bëgg rek nga ñëw si euh, Daara Xafoor moo ko sànc. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay nuyu di la siyaar ndax laaj nga ma lu mat a laaj Daaru Xafoor maam Saliou Fall moo ko sànc. maam Saliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk ndey ak baay maam Modou Rokhaya Fall ak maam Seynabou njaay mooy seen waajur mu sanc ko nag waaye tur yi ci boppam Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhum moo yónnee sëñ Daam Abdourahman Lo ñëw tudd ci tur wi kon loolu mooy Daaru Xufoor waaw donc euh, Daara Khafor maam Saliou Fall moo ko moo ko sànc voilà jamono bi actuellement fu ñu fu ñu toll nii maanaam euh, bu dee am ngeen wala la ngeen mu ko si gouvernement bu bees bi maanaam xam nga village bu nekk wala dëkk bu nekk. Mhm. xëy na peut-être soit am ngeen problème ndox wala problème courant wala yu mel noonu maanaam Daara xafoor bu ñu koy tudd léegi nii ban lan yan jafe-jafe ngeen am. waaw loolu dañ ciy sant ndax. Mhm. ñi fi toogagun moom nuy mhm. wax. xëy na ginnaaw dañuy doog a toog dan mën a sori ci ñoom waaye xëy na ñu li nu soxla war nañ ko mën a wax ndax daar xufoor day dëkk bu mag di dëkk cosaan kon lu mel ni hôpital war na fa am war na am tamit maanaam ndox ndox mi ñëw na waaye forage boobu suñ sañoon dana ñu ko soppil defal ñu ko forage bu mag boo xam ne bii suñ dëkkandoo yi ci wet yi sax dañ ciy am loolu tamit dañ koy dañ koy sàkku courant bi tamit lu mu gën a yaatu gënal ñu ndax dëkk boo xam ne dafay màgg loolu day baax ci dëkk ba waaw école bi tamit su ñu ko mënee yokkal tamit day am solo ndax boo xoolee dëkk yi ko wër yépp seen njaboot gi foofu la ñuy ñëw di jàng si waaye classe yi ci boppam dafa des kon nag ñu ngi sàkku ci gouvernement bi loolu mu taxaw ci jàpp ci ndax ndaxte loolu moom moom la war waaye nag ñu ngi leen ci tàllal loxo daal waaw. daara xafoor bu ñu jógee foofu rek ñëw diggante maam Sadou Fall ak maam Cheikh Ibra Fall. waaw loolu de xanaa wax ci moom day daal di yomb ndax maam Saliou Fall Cheikh Ibrahima Fall mi nga gis mu jóg wëri sëriñ Touba maam Cheikh maam Saliou Fall moo ko tegtal moo nekk ki ngay seet sa sang bi ñëw na fi léegi mu ne ko anam mu ne ko fii la taxawoon tiim la. ba mu ko waxee maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall da koo xaw a dëndëmlu waaye ba mu ko ko waxaatee mu ne ko bu fi ñëwatee nag ma këppal tànk bi ba mu fa ñëwaatee nag mu këppal ko tànk bi maam Cheikh Ibrahima siggi xool xam ne ki mu koy wax kooku la maam Cheikh Ibrahima Fall war a gis santeel war cee dimbali jaam yi maanaam mu daal di koy jóg daal di koy wëri waaye nag loolu liñ ci mën a wax mooy koo xam ne kii xam nañ ne ku fa jiitu bu dee sa mag la sax yaay nekk kilifaam nga xam ko gore waneeg taalibe jiital sa mag joxe yar ak teggin wane ne toppee rek moo am solo ba tax mu jël loolu jox ko maanaam loolu ak ak cant la ñaareel bi ci topp Daaru Xafoor day dëkk boo xam ne bi dëkku ngëneel la te nit ñu bari mënuñu ko xam dëkk boo xam ne si Abdou Khadir Mbàkke ci boppam wax ne ne day këru àjjana yu naqaree dëkke te gaa yi xamuñu ko teen bi ñuy wax daaru xafoor ñëpp dégg nañ ko muy jaaji faal jaaji faal googu nag sama turandoo sëriñ tay Ñaŋ moo ko gas maam Saali Faal moo ne ko woon soo ko bënnee ma bënn la kon kooku doon na loo xam ne lii muy teen boo xam ne bi maam Saali waxoon na ne boo dee dikk ak jàngoro boo mën a am boo dee naan ci sama teen bii di dox ci suuf si bu yàggee nga mel na ñépp kon loolu leneen la ci daaru xafoor te wax nañ tamit maanaam bisub tamxarit ci guddi ndoxu sam-sam moo fay fanaan bu bët set waaw mu doon loo xam ne lii bari na loo xam ne lii ci Daaru Xafoor suñ ko doon wax yaakaar naa ne duñ fa jóge waaye ni mu deme woon ak Cheikh Ibra tamit dafa daru woon ci moom topp ko maanaam ba jot ngërëmam maam Saliou Fall dafa am ay ngërëm yu bari ndax dafa am ngërëmul Serigne Touba am ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall magam waaw ndax topp gi mu ko doon topp waaw man ma bëgg rek ñu ñëwaat encore si teen bu nga wax sànq. Mhm. nga gën a xuus si si waxtaan bi ndax euh, dese na dese na leer tuuti. Mhm. waaw si teen bi laa bëgg nga ñëwaat encore. waa teen bi. Mhm. dama ne la teenu ngëneel la. teen boo xam ne bii maam Saliou Fall moo santoon Serigne Taïba ñang borom dala ngir mu gasal bënnal ko teen bi Serigne Taïba ñang bënn teen bi mu ne ko dana ko da koo wax ne ko boo bënnee teen bi danaa la bënn sëriñ Taïba Niang moom moom la mu tuddee sëriñ Taïba Niang bënn teen bi teen boobu laa la wax ne la maam Saliou Fall ci boppam moo ne teen bi soo ñëwee am jàngoro boo mën a am soo dee naan ci ndox mi di dox ci suuf si bu yàggee feebar boo am day day dañ mu tudd Jaaji Fall teen baa ngi daar xofor ba léegi maanaam te ndoxu sam-sam bisu tam xarit ndoxu sam-sam moo fay fanaan bu bët set nga xam ne bi bu guddi tam xarit bu jotee daanaka oto yi dañuy ñëw di fa gaari nit ñi fees fa del ñëw ngir root si ci teen bi ngir barkeeloo ko kon teen boobu day teenu ngëneel boo xam ne bii mu ngi daaru xafoor teen boobu da daan def su fekkee ne bi maanaam gars yi nga xam ne maam Saliou moom lan àndaloon muy jinne yeeg yooyu maanaam suñ mosaa di wax ak ki nga fa toogal maam maanaam dañuy xorom bi ba nga xam ne teen bi ci boppam dootoo ci mën a naan ngir wax ne maanaam lii laa bëgg nga defal ñu ko soo xawee dënënalu rek ñoom dañuy xorom teen bi te teen boobu ci la waa dëkk bi doon jëfandikoo ci nga ñuy togg ci la ñuy naan ci la ñuy ci la ñuy fóot buñ ko defee noonu nag xam nañ ne aajo bi ñu wax faaw nga faj ko ndax boo ko fajul sa njaboot yi duntun mën a jariñu ci teen bi kon teen boobu day teen boo xam ne bii teen bu mat a dem barkeelu gi la xëy na ñu bari ñu ngi romb daaru foor ndax baatin bi moo bari ndax baatin lu mu bari rek fu mu nekk rek danaan dégg moo waral ñu bari di romb daaru xofor duñ ko xam waaye kon nag daaru xofor ngi noonu ak teen bi moo tax sax ma bëgg nga ñëwaat si teen bi <laughs> waaw parce que xam nga ñu bëri peut-être c'est la c'est la première fois sax ñu découvrir wala ñoo xamante ni ñu ngi koy dégg mais xawoon dese na leer si seen bopp voilà loolu moo tax léegi ñu bëgg xam rek exactement maanaam teen bi maanaam tey tey mën naa jóg rek am jàngoro si sama yaram ma ne xaaral ma dem daara xafoor ten si teen bi wala am na ay jour wala am na ay bés boo xamante ni ñoom la tànn pour nga dem si teen bi. teen bi amul ay jour ndax maam xatalul maam baa demoon ba tudd ko docteuru lislaam xam nga boo demee ba monde bi ñépp xam ne yow mii ñu tudd la docteuru lislaam kon kooku keneen la. te musta xatal ndax xatan bu doon xatal maanaam ñi mu daan faj nga xam ne dañoo am ci wàllu wéradi xel ñu leen fa daan indi ca ñi leen daan indi dañ leen daan yeew ba nga xam ne bi duñ mën a siggi sax def dara mu ne leen gor kenn du ko yeew yeewi leen waaye ay mbokk mbokki ñooñu sax duñ ko ñemee indi duñ ñemee yeewi kin indi foofu te boo ñëwee une semaine nga fay def walla dara maanaam mel na nga melaatoon maanaam ba nga xam bi tubaab bi fi nekkoon nga xam ni dana koo xool na ko Afrique li ngay faj ci wàllu ku wéradi amul ci Afrique ñu bëggoon laa décorer nag décorer gi mooy lan da ngay xool maanaam côté bu nekk penku saw saalum gànnaar fu ci nekk nga jël ñaata kilomètres yi la doy ñu defal la ko titre foncé xam nga kooku bu fekkoon ne dafa bëgg rek wala leneen nekk ci moom mënoon naa taxaw ne leen côté bi soxla naa fi nangam te boobaa titre foncé moo fi nekk waaye dana leen dafa am sama mbokki jullit yu ñu fi nekkal ñu nekk ci seen suuf di ci jaamu yàlla kon nan leen bàyyeek seen suuf waaye man garaatu sunu boroom damaa doy ba taxoon na nag ñu indi woon ay sàqiweñ nasaraan bi indi woon ay sàqiweñ jox ko ko nag waaye lii mënul ñàkk sàqiweñ yi boo dikkee daaru xofof da nga ko gis kon kooku jàpp naa ne maanaam li jëm ci wàllu teen boobu loolu la ci wax rek am na luñ ci lu ci luñ ci lu ci des waaw sëñ bi duñ la bàyyi sànq ñu wax ci euh, magal mbaaw mhm. ñu bëgg rekk nga expliquer ñu lan moo waral organisation bi voilà te yéen tamit ci seen deuxième édition suma juumul. Mhm. voilà ma bëgg nga ñëwaat rek ci màggal boobu. waaw màggalu mbaaw de. Mhm. danoo ñëw jóge aslam nekkoon fa ak mbokk taalibe yi doon yaatal foofu ba yàlla def ñu ñëw mbaaw tux fa. ba ñëwee tamit. ginnaaw ñun dañuy tudd di tudd maam Saliou te ku tudd maam Saliou tudd maam Cheikh Ibra Fall ñu nekk ñoo xam ne ñii dañoo bëgg a nekk seeni soldaar bëgg fu nu nekk di leen fa liggéeyal liggéey boo xam ne bii ku nekk dana ci teg bëtam te amuñu dara loo xam ne lii mënees na koo liggéey ba mu fes lu liggéeyal Serigne Touba ndax ku xam Baye xam xama ko ma moo waraloon nag bi ñëwee mbaaw ñu xool bari na nag suñu mbokk taalibe yi ñu fa fekk waaye lu nekk fa ko sun fa di jaarale xëy na sëriñ bi liggéey bii ci ñun lañ ko jaarale ñu yaatal ko waaye moomuñu ko ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu jóg nag ànd koo mbokk taalibe yépp yi nekk mbaaw ak fu waaye mën a nekk te di julli rek ci liggéey bi nga bokk waaye nag ban koy laata def danoo am ñunu nu ñun dem ba pare ndax loo gis daa amul yoon sunu sang yi fa nekk muy sëñ Amidou Mbàkke bu sëñ Babacar Mbàkke mu kàbbaroo nga xam ne moo di taawam ñu dem waxtaan ceeg moom mu rafetlu ko lool ba pare sol dàllam ànd ak ñun sëñ Kabiru Mbàkke nga xam ne bii moo nga mi ngi mi ngi mi ngi mbaaw yore fa daaray internat ju mag di fa liggéeyal maamam moom it sëñ Masamba Mbàkke mooy maamam ñu wax ko ko moom it mu rafetlu ko lool ànd ak ñun liggéey boobu ak magu magu kilifa yi nga xam ne yi danoo nekk foofu ci gox ci mbaaw ñépp ñu ànd kook ñoom dox kook ñoom dem ba nga xam ne bii nag xam nga mbaaw ku ko wax waxtu xam ne kiiwu lébu la dem nañ tamit ci ndey ji réew bi nekk foofu ndey ji réew wala jaraaf bi sax ndey ji réew bi dem nañ ci moom waxtaan ak moom rafetlu ko ne lu mel nii de musta am ñu ñëw toog ceeg ñun waxtaan ceeg ñun waaye ñu ne leen lu nga gis ñuy def rek ñun sëriñ bi dañoo dimbalee teg ñu ci yoon ba bëgguñoo wàcc yoon moo tax ñu doxale ko noonu ànd koog ñépp nag daaw nag taw féexe woon na lool waaye ren it ah yaakaar naa ne dana yaatu. Hmm. ndax li ñuy bañ mooy liggéeyal Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am moo tax it ñu ngi koy ànd ak ñëpp maanaam fas yéene cee dox jëm ci waaw waaye nag am na ci ñoo xam ne ñii dañ leen koo dara jaale ku mel ne sëñ Taïba Niang mi nga doon tudd muy jàmbaari maam Saliou Fall ak ak Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne ku ko xam-xam kook sëriñ Saliou. ak ab taxawaayam ci liggéey bi boole ci tamit Cheikh Abdourahman Fall la ku ko xamoon xam ko ci Baye Fall xam ko ci nangoo liggéeyal Cheikh Ibra te gëmoon ko lool waaw ñooñu lan dara jaala bis bi kon nag bis bi moom mi ngi noonu waaw. bis bis bi nu muy demee man chronologique programme bi lañ laa bëgg a wax. waaw programme bu bis bi hmm. dañuy def bu nu xëyee dañuy wàcc ay kaamil maanaam ñaanal réew mi jàmm. ñaanal suñu kilifa yi ak way dawlo yi ñaan tamit bis bi suñu borom def ci jàmm ñu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggalee ko alhamdulilahi rabil alamin waaw loolu lañuy ñuy loolu la def bu ñu demee ba nga xam ne bii maanaam tisbaar jot na ndax ku wax yoonu murit wax bernde bu ko defee ñu berndeel jaam yi ñu xéewlu bu ñu jógee ci loolu daal di continuer def nañ euh, consultation gratuite dañ ko ciy def pour ndax boo sañoon. njaboot gi nga àndal ak gi nga nekkal maanaam ñépp jàmm la ñuy am ku nekk xool sa yaram ñu xoolal la bu fekkee ne bii daa am leneen loo xam ne dangaa war a dem hôpital wala dara ñu wax la ko pour nga jóg dem ci bu fekkee amoo leneen lu ci kii it nga xam ne sa yaram jàmm ci nekk loolu daal lan la nga xam ne moom la ñuy commencé bis bi ba ci guddi gi ay huit ba bët set bu ko defee jàng xasaayit rajas sikarulaa ak waxtaan ndax maanaam Cheikh Abdoulaye Diop Bichri nga xam ne bii ku ko nekk xam na ko ci yoonu murit ak waxtaan wi muy def ci sëriñ bi xam mag ñi bu baax mooy mooy mooy mooy mooy def waxtaan wi waaw loolu daal xam naa ne noonu lañ ko bëgg a defee daal incha allah. waaw sëñ bi laata ma bàyyi la rek. waaw xam ngeen ne gouvernement bu bees moo nekk fii. Mm-hmm. kii di euh, président Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. ak son premier ministre Ousmane Sonko. Mm-hmm. daanaka def nañ fii 100 jours. ñëpp ñu ngi siy wax. maanaam en tant que sëñ. Mhm. am nga tamit am nga ay ay taalibe ñoo xamante ni xëy na chaque jour dina dinañ la jox compte rendu. Mhm. ñu bëgg rek yow nan nga gisee maanaam walla 100 jour yi noo noo ko gisee. waaw voilà 100 jours di président Bassirou Diomaye Faye. waaw ndax tàbbi ci loo xam ne li yaa ngi koy doog yor dafa metti mhm. man sama xalaat bu gàtt ndax mbir boo nekkee ci biti doo xam li nekk ci biir néeg bi xëy na ñoom bi nekkee ci biti nanu fooge woon nag ak li ñu fekk ci biir mën naa am bokkul waaye gis nañ na tamit ñu ciy def góor góorlu am ci taxawaay waaye njaboot gi moom boo xoolee ak dal la ñu àndal ndax nit boo ko jiitalee da ko bàyyi tuuti mu liggéey waaye nag nanu xam ne la leen faloon ba léegi mi ngi fi ndaxte bu ñan fa doon jëlee danoo amoon lu ñëpp jógoon di ko bañ di ko xeex ngir loolu dañ fi kon nag bu ñu toogee na ni jàpp ne ñan ko doon àndal ba léegi ñoom lañ ko àndal kon nan xam la leen teg ci réew mi ak lana leen fi war ak ci lan lan war a doxe ba bu ëllëgee ñu am ndam yow daal ñu ngi leen koy dénk te di leen wax na nag nañ jàppale ndaw ñi nañ jàppale ndaw yi ci seen kem kàttan ndaxte ñun ñi ngay wax ñi wax ak yéen nii amuñu lu dul njaboot gi suñu sañoon ku ci nekk da nga téye fenn di yëngatu ba mën a dimbali say waajur parce que loolu mooy sunu ndam ñu mën leen a tàggat teg leen ci yoon sara siraatal mustaqim ba lépp li ñuy wut ci ñoom ñu mën ko am ba nga xam ne bii seen waajur yi danañ seen xel dana gën a dal te danañ xam ne ànd gi ñu doon ànd ak ñu nit duñ ko réccu waaw loolu daal maa ngi koy dolli ci kii bi ma bàyyi la rek ban message nga bëgg a lancé wala bu fekkente ni am na point boo xamante ni laajte wu ma la ko après ma bàyyi la rek nga wax profito tàggatoo ak mbokk internetu 313 digital. dëgg la ah loolu de xanaa <laughs> sant ak ngërëm rek ndax sant ak ngërëm moom mënut a ñàkk. waaw ci ah, abaam yi nga xam ne mii moom day lenn ci ñun ci taxawaayam pasteefam doxam bëgg lépp jag. boobu ba léegi ci lay yëngu ci lay dox moo jëwriñ bay di mii nga xam ne yaakaar naa moom avant moom laa waroon a bàyyi sax mu wax ci moom ndax ñii su ma dee wax ci ñoom day mel ne ràcc jëmale sa kanam waaye ku nekk xam na taxawaay bi nu am ci bis bi ku nekk xam na lan ciy dox amuñu jot waaye seen jot gépp dañ koo dëxañ fale ngir bis bi jag kon nag ñii moom ak cant ak ngërëm dafa war a jóge ci man jëm si ci ñoom te loolu moom dama koy biral ñëpp di ko di ko di ko di ko am ndaxte maanaam lii bu amee tey nañ ko sante Abba ndax mu wax dëgg yàlla yaakaar naa sonn na ci taxaw na ci dox na ci te lii rek lañu bëggal kon nag yéen it ñu ngi leen di ñaanal ngeen dem ba am seen télévision maanaam yokkute boo xam ne bii daal bu ngeen fi jógee balaa déwén ngeen am yokkute goo xam ne gi da ngeen xam ne bi ñu fi jaareek léegi amu leen tànki ginnaaw tànki kanam ngeen am am nañ ci yaakaar bu baax ndax maanaam ak yar gi ak teggiin gi ak waxin wu sell wi loolu daal ñu ngi ciy ñu ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax sant goo xam ne am na tàmbali waaye amul bu yem. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Serigne ba Fall. <laughs> tey euh, mbokki internet 313 digital Serigne Taïba Fall la lañuy dalal si suñu émission voilà di leen jaajëfal rek jox leen rendez-vous si seen euh, beneen émission. xanaa di sant. ndax dañuy sant. ki nga xam ne kii maamam la ñuy liggéeyal muy sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd di ci teg sëñ Amdi Moodu Mbend di ko ñaanal tamit mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant sëñ Assane Moodu maam mi nga xam ne mooy xalifa maam Saliou Fall borom Daaru Xafoor di ko ñaanal mu gudd fan te ànd ak wér ndax yan bi mu yonu diis na lool waaye fa ko waajuram yi tegoon yëkkatiwaat na ko def ci lu kawe seen jort ànd ak kook ay rakkam yépp nag di sant nag sama sëriñ sëriñ Modou Anta Fall muy xalifa sama waajur sëriñ Abdoulahi Fall di ko ñaanal gudd fa ak wér moo ki rakkam ak mbokki taalibe yëpp di sant ñëpp di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon mën ko waxee rek Serigne Taïba Fall la ñu dalal tey si suñu émission ma ngi doon jox dig daje rek si beneen émission. incha